tout bu ñu xoolee at yi passé problème yi am ci dëkk bi problème justice bokk na ci. Mhm. donc euh, man damay rafetlu assises yi am sur les réformes de la justice. je pense que li am solo rek. Mhm. mooy que lu ñu fa jàpp li ñu am ci consensus ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi ñu ñu appliqué ko. Mhm. loolu am solo la maintenant débat euh, président de la république est-ce que war na continuer di jiite au conseil de la magistrature man sama xam-xam bu gàtt mooy kën a c'est que pour la symbolique. que ñoom mu quitté foofu dana jo joxe ay ay garanties sur l'indépendance de la justice parce que li ñu li ñu li ñu bëri si sonné. Hmm. c'est que exécutif am mainmise dans la justice. Hmm. le fait que président bi jógee fa. je hmm. pense que dana gën a leeral que la justice est indépendante et que. Okay. voilà bon la li ci des nag moom xëy na spécialistes yi ñoo koy traité. mais pour ñun. Euh, le fait que mu bàyyi ma présider Euh, au conseil de la magistrature ne serait-ce que pour la symbolique hein. Mhm. pour man loolu acte la boo xam ne mhm. véritablement mën nañ jàpp ne justice bi am na indépendance